xale yi daal li ci am ba sol na mag ñi ñaan te wala ñoom ñëpp ci néeg ñàkk gi dëgg réew mi ñàkk nag moo tax ñuy dem dañu alfaqru ñàkk kaada xaw tuuti ko ñu ni ashadu min al kufru mu gën tar yéefar yal nañu yàlla ci ñàkk ku yedd xale yi yàlla la natawul ci ñàkk yal nañu yàlla musal ci ñàkk am réew li ko yor mooy jéem a góorgóorlu doylu te nangu di bay di ko dundee mais mën na yow looy dund wala loo bëgg a dund koy jënd ci biir réew mi te lañ cay def jaay la ko xamuloo te technologie bi egg na foo xamee ni duñ la rey léegi nga dee léegi ba dañuy xam diw moo la rey mort lente lañ lay def mu moo xam da nga koy sol nag la moo la yóbbu sàq lekk boo xam da nga koy lekk nag moo la yóbbu bar sàq néeg boo xam da nga ciy dugg peinture boobu mool la yóbbu bar sàq te ñun yeewuñ ci loolu te loolu dafa am léegi ta tëdd ci i nit ci naan na fay fay mu ëpp sécurité dugg ci biir nekk climatisé ko kon li ma la ci mooy euh, tooñ cim réew yal nañ ci àlla musal li fi jëlee nag lii mooy sarxe ak ñaan آمين آمين